malakani ljaamiu yowma aljumua maa li wax dixtaarahu wa jamaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi ñuy bàyyi xel ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi saaxibul fadila wala wasila Cheikh Mouhamadul Muntaxal Basiru di ko ñaane yàlla gudd fan ak wér-gu-yaram waaye noonu lañ koy ñaane leen mboolem njabootu ah, di am mbégte ak kontante bu baax a baax ci ñëw ci liggéey bu màgg bi nga xamante ne ah, Cheikh Mouhamadul Muntaxa jàmbaari Serigne Touba ji daf ko amal ah, ngir soññ jaam yàlla yi si jaamu muy ñaari bis yoo xamante ne ñaari ajjuma yoo xamante ne dañ koy wéyee ci sikkarullah ak li nga xamante ne moom mooy jàng alquran ak salaatu ala nabi ak xasida a euh, ñu taxawee euh, jotaay bu njëkk ba ci ajuma ji ñu génn tey ci ajuma ji tamit ñu daal di euh, fas yéene waata ànd ak ñun ñëpp rek fas yéene ànd ci ndigal lool le ndigal léegi yaatu gum yaatu tax na tey ñu ñëw fii nga xamante ne mooy biir jumaay Touba ci ñi nga xamante ñooy waa daaira bi nga xamante ñoom ñoo fi nekk jiite njàngoom alxuraan mi ñu jàkkaarloo ak ki nga xamante ne moom moo di Serigne Khadim Mbacké ñu jox ko kàddu gi mu nuyoo suñu nuyoo pare ñu doog a dugg ci laaj ak tontu yi. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. mbokk yi ñuy seetaan ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara biir ziyaar boobu ñuy di jiital Cheikh Mouhamadul Muntaxa ñaan sun borom bi dëgëral ko te kattanal ko te yokk fan wi lool ba def ci sax mujiza naka noonu ñoo lañuy nuyoo it Cheikh Mouhamadou Xabban Mbakke moom Cheikh Mouhamadul Fadal di nuyu it mbokki taalibe yëpp Serigne Amsatu Mbakke moom Serigne Chouaïbou ñu ngi koy ziyaara baax moom it naka noonee it sunuy mbokki Baye Fall yi waa kër Serigne Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima Fall ñoo ngi siyaara ñoom ñëpp rek di leen ndokkeel bu baax a baax a baax di am mbégte bu baax ci jëf ju tedd ji nga xamee ne Serigne Mouhamadul Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikhul Khadim baaxee nañu ko ndax tawféex rek la mooy xool li nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg bu di ñu dugal diñu ci jéem a diñu ci jéem a nàmpatal loolu nag war na saa su nekk ñi di ko sant waaye di sant bu baax it njabootuk Cheikhul xadim gi yëpp rek eh, ak ak ñun taalibe yi ñëpp rek ñu ngi leen di sant di leen gërëm di di di di ndokkeel bu baax ci bis bu tedd bii waaw. macha allah Serigne Khadim xanaa laaj bu njëkk bi rek moom mooy eh, yéen wàll wi nga xamante ne moom ngeen yore ci liggéey bi jëmee ci wàllum alxuraan ji naka ngeen préparé li nga xamante ne mooy bis bu màgg bi jëmee ci wàllum alxuraan ji. ok jërëjëf. Euh, moom comme ni nga ko xamee rek moom day loo xam ne nii ndigal la ndigal lu bàyyikoo ci sëriñ bi te ñun moom dañu ay taalibe taalibe nag daa baax ci moom thumma imtisaali amrihi haysu warad loolu daa baax ci taalibe mooy jëfe ndigal fu mu fi man di rotee loolu daa bokk ci yi nga xam ne sëriñ bi da ko boole woon ci melokaanu murid bu dëggal melokaan boo xam ne murid bu bëgg a dëggal loolu da ko caa boole woon moo tax bi ndigal li bàyyeekoo ci cheikh Mouhamadul Mountakha ñëw ci Serigne Xabbaan Mbàkke moom cheikh Mouhamadul Fadal mu jëm ci alquran ji comme ni mu ko seddalee rek comme ku mel ne ki ñoom sëñ Yuusuf mi nga xam ne moo jiite isbu tarxiya bi ak wàll gépp rek kenn ku nekk bay ci sa waar ba mu yegg si euh, sëriñ bi nag sëriñ Xabbaan moom cheikh Mouhamadul Fadal moom euh, ndigal lay ndigaliko moom moom moom fu mu fi jógee rek mu daal di mu daal di wëy jëm ca jëm ca jëm ca ndigal loolee xool nu mu gën a baaxee ñu defee ko noonu bim ñëwee comme nan ko baaxoo defee rek woo nañ mbooleem ñi nga xamee ne ñoo nekk ci biir Touba te te te te te bokk alxuraan ji ñu woo leen lu mel ne ki waa bi ci jiitalu Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abibou ànd koog ñoom Serigne Xaali Jaxate ak ku mel ne ki Serigne Euh, xaadimul Qur'an mi nga xamee ne moo nekk Daaru Salaam ak Serigne Mbacke Jaxate mi nga xamee ne moo nekk fii ci daar ci ci ci ci daaree kaamil gii nga xamee ne moom la Serigne bi baaxoo woon di mu bokk ci yi nga xamee ne ndigal la woon yoo xam ne Serigne bi ko joxe woon ak euh, ñëpp rek ku mel ne Serigne Ibrahima si ñum ñëpp lañ boole woo moo tax ñoom ñëpp wuyu si boo xoolee euh, jàngukaay yi nga xam ne fi la ñuy jàngee alxuraan. nit ñi danoo fees a fees ba amuñ fuñ toog fi mu ne fi mu ne foofu la foofu la yëfi toll boo xoolee dafa fees dell la loolu nag ñoom it xam nañ moom yoonu murit moom ndigal la xaar euh, ndigal li fu mu fi man di bàyyeekoo it amuñ ci amuñ ci benn yiite amuñ ci benn dañu am dara bëgg-bëgg lu dul jëfe ndigal loolu biñ ñëwee tàmbali nañ ci jàmm comme niñ ko defee woon ajjuma gële jàll donte gii moo gën a nosu moo gën a moo gën a tawféexe ndax fexe nañ ba am ay organisation ci biir lépp euh, ci wàllum ña la ñuy jëfandikoo rek xeet yi demee noonu sëriñ bi nag ci biir liggéey bi mu am ñoo xam ne nii nag ñoom la wax ne ñoom ñoo ñoom ñooy nekk ak yooyu ñu tudd ci doomam sëriñ Abdou Fatah ak sëriñ Jiri Bousso euh, Asmaawo ak sëriñ Xaadim jëmm ju xeebu di wax ak ñeneen ñoo xam ne ñoom la ñoom ñoom la wax ñu ànd ci liggéey bi ñooñu nag ñu ngi ci def seen kem kattan kenn ku nekk di ci di ci di ci góorgóorlu waaw. maanaam lu jëm ci wàllum njàngum alxuraan mi ku ko wax wax ay limu kaamil ndax am euh, ci jataay bii jàll muy ajuma jële jàll tënk ngeen ñaata kaamil leen jàng ak tey jii fi ñu toll nii ñaata kaamil ngeen amagum. alhamdulilah loolu laa la doon wax léegi jotaay bee jàll moom daa woon jotaay boo xam ne nii eh, jotaayu bette la donte am murit kenn waru ko bett daa war saa su nekk daa war a pare waaye nag euh, ab ab jàngat la. boo xam ne nii bañ ca bañ ca jugee eh, bi ñu laajee ñaata ngeen jàng ci ay kaamil eh, mënuñ cee wax dara ci lañ jël nag ay matuwaay ren eh, fi ne tey jii bu soobee yàlla mu njàng mi jeex danañ mën a wax ne temps la ndaxte jàngukaay bu nekk def nañ fa ay biga ki fooy yoo xam ne nii am na fa nekk di ko saytu ngir maanaam lépp luñ jàng lu nekk ñu man koo wax yi sëriñ bi daan jàngalu bu njëkk yi daan nañ ko def waaye moom moom moom la bee jàll moom dañ ne moom jëfi sëriñ bi nañ ko nañ ko jëf rek nañ ko jëf rek nañ ko nañ ko def rek ndaxte njort nañ ne àllarba lan ñun ñun lañ jot ci ndigal li alxames ci dox ajjuma gi daal di ñëw loolu moom moo tax waaye ren moom incha allahu rabbi wala tey jii moom bu soobee yàlla bu ñuy paree dinañ man a wax ne temps lan jàng ci ci ci kaamil alquran laaj bu mujj bi moom mooy en tant que taalibe Serigne Touba ndigal lii Cheikh Mouhamadul Mountakha joxe lan mooy yëg-yëg bi nga xamante ne am nga ko soxal yow jëmee ci bis boobu. waaw li Serigne Touba wax rek ci alxuraan rek loolu mooy suñu yëg-yëg sëñ Tuubaa dañoo digal ñun taalibe bu nekk muy góorgóorlu ci njàngum alxuraan kullu muridin bi yaluudu fal yudim tilaawatal tilaawatal li gayri dikrin xadru sim la wax nee na bépp murid bu nekk na góor góorgóorlu di jàng alxuraan saa su nekk waaye tamit alxuraan ji ñuy jàng it nit ñi fees giñ fi fees ak suñu wootee liñ fiy jàng ci ay kaamil loolee day dellu ñu dëggal ci ne sëñ Tuubaa bu ne moom moom alxuraan gu ne loolu dëgg la ndaxte nee na malakanil quraan tamlikan yadum aw rasani kitaabullahi la wax aw rasani dond loo na ma sun borom bi dond loo na ma téereb yàlla bi loolu moo tax ba euh, lii moom tawféex la tawféex la joo xam ne nii dañ ko ci dañ sëñ bi rek lañ ciy gis ndax ndax ndax dañuy xam ne koom tem cheikhul xadim alxuraan la ndaxte waxoon na ne kanzil kitaabu wal xadiisu wal adab laa jamao fiddatin wala jamao dahab nee na sama komte dëgg mooy téereb yàlla bi téereb yàlla boobu nag moom la biñ ko wootee mbokk yi fu ne la ñuy bàyyeekoo fi ne boo xoolee ci euh, fii nga xam ne fi la ñuy jàngee alxuraan gis nga ni muy feesee della mbooloo mu dul jeex ñoo fi ñëw ñoo xam dañuy ñëw sa duna am fuñ toog waaw loolu nag mooy Cheikhul Khadim rek euh, jël léppam jox ko yàlla Eh, jël léppam jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu fayee ko lii rek waaw loolu rek mooy mooy yëg-yëg bi nga xam ne dañ ciy dañ ciy am waaye tamit eh, Cheikh Mouhamadul taxaa dafa mel ne daf ñuy dimbale ngir ñu sax ci jàng alxuraan daf ñuy dimbali ci ñu fexe ba li sëriñ bi bëgg ci ñun ñu di ko def Sëñ Tuubaa dafa waxoon adim adim tilaawatal kitaabi waaw adim tilaawatal kitaabi walaw walaw bi thalaa walaw thalathatan min al azabi la wax na nga sax ci di jàng alquran bis bu set doonte ñetti doonte ñetti ñetti isib doonte ñetti isib loolu moo waral kon kenn ku nekk ci ñun war na ci bàyyee xel bis bu set ab murit bu nekk war naa bàyyee xel bis bu set bala mu génn këram wala wala wala wala mu mu mu mu am jombatey tëdd ci lal tëdd jàng alxuraanul karim loolu am murid bu nekk war na cee bàyyi xel baax a baax a baax loolu lañ ci gisee loolu loolu rek mooy yëg-yëg bi nga xam ne war nañ cee bàyyi xel baax a a baax waaw waaw. yi tàggatoo yi. waaw kay ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di eh, sant muqaddamatul xidma bi nga xamee ne fii ci jumaa ji ñoom it bi nu ñëwee seen taxawaay yu am solo yi nga xam ne taxawee nañ ko eh, ñun nag kenn lañ ci biir jaboot gi moom eh, ndax dañ caa bokk ci biir waaye teewul taxawaay yu am solo yi nga xam ne def nañ ko ndax day day daa daayira boo xam ne nii eh, sëriñ Saliou Mbacké mu baax ma moo ko moo ko moo ko joxe woon ndigal te ta te te te ñoom lii seen yiite dëgg-dëgg fexe ba mbokk yi képp ku bëgg a ñëw ci jumaa ji ñëw ci ñëwinu sell waaye tamit nag fexe ba jumaa ji di sell tey xeeñ lu neex loolu nag moo tax saa su nekkee ñu di ci doxee nii ñu ciy doxee eh, di di di ànd ko mbokk yu tedd yoo xam ne nii ay ay kilifa lañ fa lañ nekk kon nag ñooñu ñu ngi leen di sant di ñaanal nag Cheikh Mouhamadul Mountakha ñaan mu yàgg fi lool te ànd ko wér maanaam euh, li ñuy ñaan mooy aw dundam yàlla na nekk kimtaan ci ñëpp waaw yàlla na dund dund dund ba mu nekk kimtaan euh, sëriñ xabaanam Cheikh Mouhamadul Fadel it ñu ñaanal ko yàlla sunu borom bi defal ko tawféex bu baax a baax a baax moom it. Euh, ndax day liggéey liggéey bu rëy rëy ci alxuraan ba noppi di ko def ci defin woo xam ne nii maanaam ci secret la ndax ndax ndax baaxoo wut wax ju bari. kon nag loolu ñu ngi ciy sant ñëpp di gërëm ñëpp daal euh, sëriñ am saak waa waa waa waa waa sunu mbokki Baay Faal yi ak it maanaam euh, euh, waa Hizbu Tarxiya ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waaleykum salaam wa ta taala wa barakaatuhu kon mbokk yi ñu doon bàyyi xel li mooy reportage bi ñu jëlee fii ci jumaa ji àndoon ko ak Serigne Khadim Mbacke mu Serigne Modou Xaban euh, jëmee ci wàllum li nga xamante ne moom moo di liggéey bu am solo bi nga xamante ne ci wàllum liggéey bi al jàngum mi ci bis bu màgg bi le ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ilayya qaada allahu yawma aljumaa min jamaa